asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci Touba Thiès kër Soxna Bintu Moustapha ci wàccaayu bisu xasida yi di waajal guddi àjjuma incha allah ñu war ko amal ci alxames ji ñu fas ci yéene nag ànd ak mboolem taalibe yi nekk ci dëkk bi ci kuréel yi ak ak jàngikati xasida yi yëpp rek incha allahu waaye itam mu am taxawaay boo xamante ni dañ ko bëgg ànd ak kuréelu maj moomo noore ni incha allah ñu dolli ko ren ci liggéey bi ñu am yéene nag mbooleem kuréel yi nga xamante ni ñoo aju ci bis bi ak kuréel yi nga xamante ni ñoo ajuwul ci bis bi ñu invité ci ñëpp ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba. ci 21h lay tàmbali ñu fas ko yéene jëmale incha allah ba waxtu yi xori ci guddi gi ñu woo ci ñëpp bàyyiwuñ kenn kuréelu xaside yi. ak daayira yëpp rek bàyyiwuñ ci kenn incha allah yàlla nañ ci yàlla yóbbu te yàlla defal ñu ci tawfeex mu doon bis boo xamante ni bisub waajal itam. bisub soxna jaara boobu sëñ am satu woote ca poroxaan ñu jëmale ko ko ngir mu doon loo xamante ni dañ koy ànd ak moom yàlla nañ ci yàlla yóbbu te yàlla defal ñu ci tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi siyaare mboolem mbokk caal bi yi nga xam ne ñu ngi topp jotaay bi xanaa ni ko sëñ Njaay gi waxee bis bi ay fan yu néew moo ci des fan yu néew nag buñ ko waxee kenn ku ne xam ne lu ne lu ne jëmp na ci waaye damay fàttali ñi ko sos dafa am jataay buñ jataay woon ak sëñ Saaliw Mbàkke biñ ko waxee liggéey bi ba mu àgg sëñ lim li ci teg mooy saa bu dikkatee na ma ci ñaanal loolu nag mooy sas wi sas woowu nag képp kuy murit ci ne ci dëkk bi te yore jukkib xasida war ngaa fexe buñ àggee ci bis bi loolu bañ a booy ñun nag la ciy sunu wàll mañ ma honoré ni fédération élèves ak étudiants ren fas nañu yéene waaj ko ba noppi dundal ko wàccaay bi nag mooy guddi ajuma bii ñu jëm te ñuy sàkku mboolem ku ne ci dëkk bi tey murit tey dund xasida nga ñëw gunge ñu ci guddi ajuma bi ndax kat ñoo ngi jàpp ne ku ci ñëw ba jóge ci beneen xaal di nga ko amaat ci bi kon loolu mooy soññe bi mooy li ñuy bàyyiloo xel ñëpp ndax loolu loo xam ne bi nga ko tàmbalee la ko ñëpp roy war nga fexe ba du ba du saaw war ngaa fexe ba ni nga ci nekkee woon ba ñëpp naw ci maanaam loolu woy kon ku ne ñu ngi la koy fàttali ñu ngi la koy soññ ñu ngi kiy xaar itam sa taxawaay ndax xasida xasida lañ ko Sëñ Tuubaa lañ ko jaglal te xasida lañ koy jàng loolu nag mooy liñ bokk leneen lool loolu rek luy taaral bis bi la waaye dëgg-dëgg bis bi mooy xasida yi ñuy loolu nag ñépp a ci am wàll képp ku bëgg Sëñ tubaab bëgg nga xasida yi kon bis mi mooy màndargaal loolu kon eh, ñu ngi kiy soññ bu baax di ko fàttali ni ko suñ jëwriñ ji di defee moom Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ndax day woote ci Touba bisub xasida te ñun ñoo ko tàmbali woon kon lii luy sof luy sofu ci loolu la maa ngi jékku lu baax baax kàddu yi ñuy yëkkati gannaaw kàddu jëwriñ sa Ndiaye Guèye jërëjëf